dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen i kaay ñu xëyandoo njiitu réew mi di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ni ki a xàmmee ko militaire journal ni ki démb ab tenue am di ne jamono ji ñoo am ay jafe lu jëm ci wàllu mbënd mi yéen i kaay gi ne tey ji samedi ji ci la njiitu réew mi dem ci diwaanu Bakel journal bi di bés bi xëy duñu xibaar naan ñu ni ci Kédougou njiitu réew mi di président Bassirou Diomaye Faye day wax ne lu jëm ci wàllum titre minier yi maanaam permis yi nga xam ne moom la ñu joxe ngir ñu mën a xool ay or ak seen ñoom loolee lépp njiitu mi nee na titre minier yooyee danañu ko daal di audité kay gi de ñoom li ñu am ay jafe-jafe courant ak yoon yoo xam ne yoon yu dagg la observateur ñu xëy fekk fa njiitu réew mi mu jox leen ay assurance waa Kédougou daal nay wax ne mbooleem loo xam ne ay matukaay yu war a jël la jamono ji ñoo ngi koy jël ngir daal koy saafara na lu ëpp 700 hectares u ceeb yoo xam ne indoon la def jamono ji ndox mee ko nangoo yéen gi di 24 heures xëy duñu xibaar naan ñu ministère bi ñu dénk wàllum njaboot gi maanaam ministère de la jël ak dund yóbbu ko ci ñi nga xam ne dañoo am ay jafe-jafe maanaam sinistre ceeb la fa yóbbu ak diwlin ak suukar ak yeneen yoo xam ne dañu koy soxlaa jëfandikoo yéen gi di libération xëy duñu xibaar naan ñu xale yi jël gaal gi kañ la a sénégalais ci ñi ñu teg loxo ak lu toll ci 35 ci ñoo xam ne ay guinéen lañu ak benn burkinabé am na lu toll ci fukk ak benn ci jigéen ñoo xam ne bokkoon nañu waa ak tasul xabaar yi waaye lu ñu yëkkul Ousmane Sonko ak président Bassirou Diomaye Faye waa APR dañu ko fàtte dañoo gont ci Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye daan nañuy wax ne taux de croissance bi mooy de fa la jëm Biram Faye ci biir journal bi daan nay wax ne Sénégal bi nga xam ne moom la président Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko di wax loolee copier coller plan Sénégal émergent maanaam ñoom nee nañu loolee seen yëf la Abdoul Mbaye ci biir journal bi daan wax ne muy président Bassirou Diomaye Faye di Ousmane Sonko amuñu expérience yéen kay gi di Walf duñu xibaar naan coalition Sàmm Sa Kàddu ñoom Barthélémy Dias ñoom tim compte nañ ci Ousmane Sonko ak président Bassirou Diomaye Faye ñoom nee nañu ànd nañu ci haute cour de justice waaye enquête xëy duñu xibaar naan opposition bi jamono ji dafa mel ni pare nañu ngir guerre yéen kay gi de la tribune Barthélémy Dias nee na ndakaaru ko jox ab sàcc Pape Djibril Fall daan wax ne gars bu ñu bëggee wër ay sàcc nañu ko wër feneen yéen kay gi di Public Quotidien xëy duñu xibaar naan ndaje mi nga xam ne sàmm sa kàddu doon ñu ko amal niki démb Déthié Fall ak Cheikh Tidiane yu mu fekkiwuñu ko lan moo xew dañoo absenté dañoo boycotté wala a Kolda bàyyi na APR yéen kay gi délégé ko xëy duñu xibaar nañu giga meeting bi nga xam ne waa Pastef ñoo ngi koy waaj tey ji samedi ji ci Dakar Arena gaa yaa ngi mañax mañaxee ndax ay écran géant yu rëy la fa gaa yi monté billet 1000 francs yi gaa yi ñoo ngi koy jaay comme ni ñuy jaay mburu ci boutique yi yéen kay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar nañu ci diwaanu Kër Massar am na ñett ñoo xam ne dañu leen a teg loxo te li tax ñu teg leen loxo dañu leen fekkee ak faux billet faux billet leen fekkee bi ñu ko xayma benn milliard la